tout partenaire yi fi ñëw tey waa Ndakaaru ñu ngi nii nee naa leen ne feebaru feebaru woon sonal na sonal na askan bi soxal na te dina département bi yor ko moom soxal na te dina

jigen ñu bari bo jale junni jigen yuy ñew di faju hôpital dantek fi nga xamne fofu lañuy faje canceru ween di nga gis lu upp genn wàll gi dañuy faatu lu tax ñuy faatu ndax dañuy yéex dem hôpital pour seet sen ween kon yéen jigéenu mbuur ku ci jigéen ku ci gisati mbaax ba mu am fukki fan